asalaamaaleykum sunu mbokk internet yi sbt média point com amaan nañu mbégte ak kontaan ñëwaat fii ci sbt tey boo xam ne si la ci wàllu làmb ku xool journée mi def xool euh, espoir yi mi boole nga xam ne euh, amateur la woon avant muy dugg ci làmb waaye bi mu dugg ci làmb it mi ngi def li nga xam ne si nii moom la ay naataankom di def ba am na sax combat yoo xam ne ni mu koy monté boo xoolee xam ne ndaanaan la ñi nga lay woo ñi nga ngi lay nuyu di wax ne auzu billahi mina seytaan rajim ginnaaw bi ñu sant di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacké mu yàgg fi te wér moog Cheikh Ndigal Sène ak kilifa diine kilifa aada yëpp daal waaw. ñi nga promoteur euh, ñi nga production kañ la dugg ci làmb ak la moo ko dugg ci làmb. ci tëgg làmb wala nekk amateur. amateur bi ma nekkee amateur maa ngi ci dugg 96 laa seetaan làmb di combat Sallou ak Boy Kéré suur boobu laa jëkk a dugg Isaac Iba Mar mooy seen premier combat bi bi ñu def Iba Mar Diop ci gason bi. après yàlla dimbali ñu virusu lamb boobu moo ñuy topp di ñu topp ba tey suñu borom dogal ñu nekk promoteur quoi nekk président jeune amateur itam nekk promoteur ñu ciy sant yàlla bu baax a baax waaw. may na ko 2019 2020 yaa ngi ci ñaari journée. waaw samedi bi ñu jëm ni incha allah la ma suñu borom di dogal ma am troisième journée di wax ne am nañ journée yoo xam ne ñu bëggaat bu soobee yàlla ñu ngi liggéey daal di wax ne ñu ngi nuyu staff ñi ngi production bi yëpp ku mel ni Saliou mi nga xam ne mooy sama coordinateur Abdoulaye Ndiaye Papa Ndiaye Bama Balde. ñoom ji ak nderi sama booy ñoom Fallou Diop ay ñoom Dame Diouf ak yëpp daal maa ngi leen di bëgg bu baax di kontaan ci ñoom. di wax ne ñu ngi ñëw incha allah samedi fii le 29 février diggante ñagas ak caatu waalo bu Bur Sita ak bu ndaw booy juum ak booy Balde euh, Modou Fëgala ak soldaar boobu Ndiaye ak yeneen combat yu bare bare yoo xam ne war na ci am daal waaw. mel ni arène nationale moom yaa ngi fi doog a ñëw muy le 29 incha allah. incha maa ngi doog a ñëw nag di wax ne daal ñu ngi topp suñu ginnaaw mag yi nga xam ne jaar nañ fi ku mel ni Fallou Ndiaye ak Assane Ndiaye ak Sam ak ñeneen ñi topp ñëpp daal waaw di jàng rek topp suñu ginnaaw mag ñi daal. Hmm. xam nga ñaari xale yi nga boole seen ginnaaw ni mu toll. waaw xam nga ñun ay amateur lañ te itam man dama fi nekk man dama bëgg ku ma sam grand combat ma dëggal la grand combat man loolu mooy sama ndax yaakaar naa ndaw ñi laa bëgg a àndal tey yàlla ngi may dimbali ñi ma fi tëggal grand combat bari na man maa leen jëkk tëggal grand combat te loolu mooy rôle en tant que promoteur boo xam ne ndaw la am lu mu bëgg ci làmb man daal maa ngi ànd xale yi daal boo fi ñu jëm waaw. mu mel ni que le 29 euh, maanaam suñu waxee grand combat bi am na koo xam ne moom nga ko dara jaale. waaw maa ngi ko dara jaale benn femme bu ñuy wax ne Adja la tudd moom coordonnateur la ci Mbaaw la nekk quoi mooy coordonnateur maire Mbaaw bi. moom lañ tuddee premier grand combat muy ñagas ak caatu waalo waaw deuxième combat bi booy juum ak euh, ak booy juum ak booy balde ñu ngi ko tuddee suñ benn papa bu baax ci ñun ñu naan kon Abdou Ndiaye nga xamee ne mooy borom imoo taw feex mi ngi dëkk jam ñaajo waaw ak beneen espèce beneen combat bi nga xamee ne Dalifor la kooku ñu ngi ko naan sukkay nga xamee ne couture la bu mag nekk marché Dalifor moom leen tuddee euh, kii caatu caatu Dalifor ak 9000 problème drapeau boobu moom lañ ko tuddee waaw daal su ma déggee mooy grand combat ak ñaar spécial. waaw am na ñetti grand combat sax ñeenti drapeau sax waaw mais ñi ngi ñaan yàgg ci jàmm daal suñ borom dogal def ci jàmm def ci salaam mooy ñëpp ñëw ci jàmm dem ci jàmm loolu rek lañ ci soxla ñun waaw. mu mel ni que ko wax làmb wax jàppale wax sponsor sponsor yi fu mu toll. waaw sponsor yi daal ñu ngi leen di wax ne ay ndaw lañ li ñu yor mu néew mu bari nañ ko woon a daggee billet dem ko Europe mais defuñu ko fii lañ toog bëgg ko bokk ñi nga xam ne la ñu yàlla booleel ñu yor seen kon ñi ngi wax sponsor yi leen laa si appel ku mel ni ministre sport Matar Ba mu jàppale lambu ndax lambu foofu la toll tey sponsor war na am biir arène nationale ba nga xamee ne promoteur bu di tëgg rek liy fere arène nationale bi yëpp daf lay wàcc sponsor bi fere loolu. loolu jaaru na pour Matar Ba ñu ñaan ko ci daal en ay rakam ak ay jarbaatam ñu koy ñaan loolu mu defal ñu ko beneen bi ci topp ñu ngi woo sponsor yu bare bare nga ñu ngi bëgg a liggéey ak ñun ñu ngi ak yeneen partenaires yoo xam ne ñu ngi waxtaan ak ñoom pour euh, lu yàggul dara incha allah ñu dem Turquie def fa komba bu mag a mag waaw. mu mel ni que sponsor kon su ma la déggee daal Touba Belal nga xam ne moom nga moom nga amagoon comme sponsor. waaw Touba Belal moom daf may jàppale guddi di ma jàppale bëccëg daal moom romb nañ sax sponsor man ak moom ndax yaakaar naa lu bëree bëri sama carrière moom joué na ko ci daal kon yaakaar naa diggante mag a rakk daal waaw. Abdoulaye Ndiaye moom kenn mënu wax làmb génn ko si ndax macha allah Abdoulaye Ndiaye moom ndaw la gudd laa ko tuddee ku koo xam ne làmb ba daal da nga jàpp ne war yaa daj ndax pa maanaam may wax rek promoteur yu bari ak ak ak mbër yu bëri Abdoulaye Ndiaye mi ngi leen jàppale ci lun ñu yëg ak lu ñu yëgut macha kon ñu ngi koy ñaanal euh, fi mu teg loxoom foofu la fi mu teg tànkam foofu la di ko ñaanal njaay jaata euh, suñu Abdoulaye tey turandoo moom ak njàmbaar mënut a ñàkk feeñ ci moom macha allah waaye ñi euh, mu mel ni que maanaam est-ce que si nga yem ñi nga waaw maa ngi ñaan daal ci kàttanu yàlla na ma yàlla suñu borom defal sutura defal ma manoore bala 22 buñ ci génnee ñu ngi bëgg combat bu mag boo xam ne dañ koy tuddee ñu ngi koy tuddee directeur port incha allah ñi ngi ko bëgg daal yàlla na ko suñu borom may nag waaw. waaw bu soobee yàlla dinañ dem euh, région yi am na ñaari journée yoo xam ne war na ñoo dem euh, fële euh, Dagana war nañ faa tëggi war a dem Diourbel suñu dëkk ndax man ku wax Bawol laa dëkk maa ngi dëkk Lambaye war nañoo dem Diourbel war a am beneen journée boo xam ne incha allah dinañ ko tëgg arène biir avril bi bu soobee yàlla kon daal ñu ngi moom jeexagu saison ren moom. maa ngi bay sama waar rek daal moom néew ma fii laay yem su ma demee daal li wér mooy maa ci làmb su ma gisee loo xam ne daf ma laaj moo continuer damay nekk ci waar woowu su fekkee ne laaj na ne ma taxaw tuuti damay taxaw daal waaw mais néew ma moom ci benn trois combats laay yem wala quatre combats bëgg naa dix journée comme sëñ Modou Niang ndax man tànki sëñ Modou Niang laaw xale bu kenn xamul war moom laa bëgg def waaw. Hmm. Ah, ki nga def roy waaye def ko wéeruwaay de macha allah mat na ko ci côté yëpp ndax macha allah tey ñin fiy wax ah, roi des arènes ñin fiy wax ay VIP ñëpp mën naa la sëñ Mourou Niang moo leen njëkk tëgg moo leen génne ba làmb xam leen ba ñeneen jot leen kon boo roy sëñ Mourou Niang roy nga ci ki nga war roy waaye fanee far ci boobu maanaam yaa ngi doon dox combat Sa Thiès ak beneen mbër waaw xam nga combat yi moom da léeg dañ ci dégg benn promoteur boo xam mais bu ñu dégg ne benn promoteur mi ci dañuy taxaw xaar ko ba mu génn rek après ñu doog a accélérer affaire daal mais am na combat yu bari yu ñu bëgg sax yu romb Sa Thiès ak Yékini bëgg nañ yeneen combat ñun waaw. am na ñu ciy wax bu yàlla ñu dem ba mënatunoo dem rek bu ñu taxawee après ñu dugg mais comme ñun ñëpp ñoo far te bu ñu déggee benn promoteur du yoon ñu di ci déggaat beneen promoteur am na promoteurs yi ciy wax waaw ñi ngi ñaan daal en tout cas defal ñu ci jàmm def sutura boobu boobu juru wërsëg itam ñu ñu yeneen combat daal ndax ay ñoom Cobra ak a fi te lamb leen soxla nu war a bëre a te bëgg nañu tëgg seen combat daal waaw mu mel ni moom saison bi euh, benn grand combat lañ si mën a reconnaître gun boo xamee taxaw na euh, muy ak bi xam moom mooy Siteu te Paf production tëggu ko à boobu amul beneen grand combat boo xam na. loolu ndax itam loolu jafe la yaakaar nañ ne suñu juumalee moom moo fi tëgg grand combat boo xam ne tey ji moom la ñuy wax ne moo fi taxawagun ñuy ñaan yeneen promoteurs yi nga xam ne suñu borom may leen kattan may leen doole ñu ñu tëgg yeneen combat yi ndax itam yeneen gars dañoo war a bëre Balla Gaye lamb daf ko soxla Gris Bordeaux lamb da ko soxla Boy Niang ñoom la de guerre tey bu lamb tey itam tey ñoom nag affaire yi mag ñi nañ wàcc seen prix yi di ma bëre ja xale yi ndax mi ngi jeex te lamb fi mu jëm nii soo xoolee tey tafaati da nga fi bërewul te Tapha Tine champion la boo xam ne tey jii bokk na ci lóob gars yi mais doo dégg mu ko gars yi karaame ne sama combat ak Tapha Tine mais Tapha das ko war a bisa revanche loolu dafa war a am dafa neex Gris Bordeaux Tapha Tine la ama seen Tapha Tine yooyu combat ñi mësuta bëre ñoom leen war a fexee ñu laalee lamb demaat feneen fi mu nekkoon ndax lamb dafa am lu mu soxla te ba léegi nekkul foofu ndax lamb li ko war a yóbbuwaat 2009 ak 2006 fi mu nekkoon mooy gone yi mag ñi wàcc bëre gone yi a est-ce que loolu promoteur yi maanaam nekkul ne ñoom ñoo sooke loolu parce que boo xoolee tey làmb ji taux bi fi maanaam kase yi fi yéegoon promoteur seen biir mu mel ne ñoom ñooy xaw a suuxlante seen biir. waaw xam nga da nit ki moom day man lii. génne ko mais yaakaar nañ ne man ji moom doxoon ak sponsor ci combat bu mag laay waxaale su ma waxee moom itam man dinaa xam daka laa mën a def ba du sponsor bi du yem ci benn combat boobu rek damay tëgg yeneen bu subaa muy yéeg ba mooy loolu mais lamb dafa baaxoo te instant dafa war a wàcc gars yi ñu wàcc kase yi ñu xam ne maam lamb moo toll foofu su demee ba dee rek nekk fa mu nekkoon kenn ku ne war nga mbër lu ne war ne non mbër mbër noobul la war a nekk beneen bi ci topp ñu jëfaraat jikko yi ci arène nationale ni ni doxee daal ndax euh, li ñu def nii ci arène nationale bi yàq làmb waaw li ma gis keroog ci diggante Alioune Seye ak ñàkk jëriñu ak yeneen waaw CNG moom wax dëgg yàlla ñi ngi liggéey liggéey bu am solo waaye léeg-léeg itam ñi ngi yàq ndax kenn ku liggéey kon ne amut tey jii am na fi yu bare bare yu ñu fi teg yoo xam ne day yàq làmb tey exemple nga ne noo da ngay jël date boo jëlee benn date da ngay joxe million ñu jox la dox jox la date loolu bokk na ci li nga xam ne day sooxal làmb làmb nañ ko defar xam ne doomi réew mi ñoo ko moom du tubaab moo ko moom du indien moo ko moom du chinois moo ko moom sénégalais ñoo ko moom te ligue la boo xam ne àdduna ñoo koy seetaan kon nañ oyofal affaire bu baax a baax a baax ba làmb delluwaat fu mu nekk ndax bu fa delloo njëriñal ñëpp la daal waaw. kon ñi nga woo sponsor yëpp nga ñëw jàppale ki nga xam moom mooy ñi nga production jëm le 29 ci diggante ki nga xam se ne nii macha allah mooy caatuwaalo ak ñagas di ñaari xale yu am yu am yu am mbooloo di ñaari xale yoo xam ne lamb soxla na leen ñaari xale yoo xam ne ay jàmbaar lañ te ay ndaan lañ ci wàllu bëre kon amateur yi ñu leen di woo ñëpp di woo président du daan jékko ndax euh, ku wax làmb wax amateur te du daan jékko macha allah moom xeebulut kenn bësam gis nañ ko ni mu mobilisé ñuy wax que ne journée boobu ñu ngi soxla na ci mobilisation sponsor nañ ñëw jàppale ñu ngi production waaye amateur yi nañ ñëw wuy si ndax mu mel ni que làmb bi léegi euh, maanaam combat yi ndaw yi bu jeexee rek balaa grand combat wala combat spécial yi stade bi day commencé vide mu mel ne que léegi amateur amatul léegi fans club moo mi nga xamee ne moo nekk président seen amateur nga xamee ne moom la yàlla dogal mu jiitu di wax ne gars yi ko waral mooy làmb ni muy doxee nii tey làmb dafa am a daw tey jii boo xoolee tey li tax amateur ñëwatul mu neexu leen tey boo xoolee tey amateur tey nga tëgg làmb ne amateur nangam laa koy def kenn du ñëw gars yi ñi ci biir toog waaw ndax itam ñi bëggoon làmb bëgg làmb dox làmb dafa am ay économie ak détail moo tax ñaar am nañu bare bare ñi nga xam ne bari na seen diggante ñu moom ko téye nañ seen tànk toog kon CNG war nañ ko jàpp bu baax a baax làmb jàppale promoteurs yi euh, ba fi ñu bëgg a yóbbu làmb ñu yóbbu ko fa daal waaw. association promoteur est-ce que ñu ngi mën ci gis boppam. waaw man Pa ñi Pape Abdou Fall jiite ci laa nekk mais maa ngi sant nag bu baax di wax ne Pape Abdou Fall mat na njiit sëkk daal ñun kuréel gi nga xam ne Pape Abdou Fall moo ko te maa ngi foofu di gis sama bopp bu baax a baax di wax ne promoteur yëpp laay ñaanal suñu borom defal leen jàmm ak sutura sama maag benn promoteur benn problème mais daal en tout cas Pape Abdou Fall li mu jiite a baax a baax ndax buñ ci bi yëpp mu àggale ko daal waaw est-ce que fi làmb toll maanaam jaroon na ngeen am ay ñaari kalan ñu naan ñii ak ñii est-ce que maanaam fi làmb toll ak ak ñi nga xam si ni nit ñi noonu leen taxawee pour suuxal làmb xam nga làmb moom seen doomu asamaan la jërul bu xante fu waay toll seen euh, ku ne na bay sa waar rek tey làmb boo ko xoolee tey boo boo calculé juróomi kuréel wala vingt kuréel yoo xam ne ñu ngi ci biir làmb bu ci bokk ak morom amut mais kenn ku ne na bay sa waar rek xam ne maam nga lii nga war a def nga def ko làmb jëm ci kanam ndax ñëpp pour man jàpp naa ne intérêt làmb moo leen tax a jóg na kenn ku nekk jàpp ne pour intérêt làmb dox jëm ci kanam daal nañ fexe nañ fexe loolu daal ñoom waaw mais beneen kuréel gu mën di doon ak kuréel gu mën doon maa ngi ñaan suñu borom daal mu def jàmm ci réew mi def sutura waaw ndax kilifa yi fi nekk jàmm la ñu ñaanal kon yàlla na yàlla defal jàmm ñun ñëpp rek waaw. journée bi nga jëm bari kañ la. journée bi ma jëm bari ñi maa ngi koy bëgg daal bu ma suñu borom defalee jàmm ci euh, avant avril dinaa ko tëgg incha allah bari bi ñu jëm nii daal mars dinaa ko def. combat bi kan war a dox. waaw Youssou Ndour daal bu bu Tëngéej moom kale naa ko maa ngi koy wut adversaire nii xam naa nag mën na nekk euh, B52 bi nekk euh, të fële kaay baax yàlla mën naa dogal ma bu taxawal leen ñoom ñaar ñu bëre ko bari ñi loolu daal laa bëgg mel ni que ren maanaam champion yu bëri gisaguñ leen ku si mel ni Ama Balde ku si mel ni Boy Niang ku si mel ni Sa Thiès Eumeu comme ni nga ko waxee sànq maanaam ñi ngi maanaam fa maanaam fi ci VIP yi fi doon nii far nga si toll wala déwén mën nañoo xaar ñi tëgg combat boo xam si ni combat royal lay nekk. waaw ñu ngi daal ñu ngi raam rek di ñaan suñu borom suñu mbokki bool bool yëpp ñu tàllal leen loxo ñu ñaanal ñu ba liñ bëgg ci làmb ñu def ko am nañ vision bi am nañ ñu ngi ñaan suñu borom mi nga xamee ne moo yor moyen nag mu defal nu moyen yoo xam ne yaakaar nañ ne bu déwénee bu ñëwee tëgg ci combat yu mag yi gars yi tëgg ay ñoom Boy Niang Lac de Guiers wala Boy yooyu yëpp bëgg nañ ko te ñu ngi koy bàyyi xel dal ndax nag borom euh, ah, xamu nu ko olof di waxe noonu boo gis maa mi ko magasin moo ne ca xol ba te am nañ yaakaar ci ne ñu ngi topp suñu ginnaaw mag ñi daal waaw bëgg nañu def li Gaston Mbengue ñoom def wala suñ ko mënta def itam ñu def loo xam ne maa ngi kat làmb dinañu bàyyi xel bu baax waaw boo liggéey bu ñu waxee làmb tudd leen waaw ndax xam nga Youssou Ndour dafa wax lu am solo loo xam ne nee na am réew boo ci bokkee na a fexe ba bokk ca way wa ndax way wa du niil te loolu ñaan yàlla daal boo liggéey bu ñu fi nekkee itam ba yàlla dogal ñu jóge Dakar ñibbi Bawol gi ñu dëkk boo liggéey ñu ne diw de moo fi nekkoon moo tëggoon diw ak na waaw kon bàyyi la nga woo ñi nga xam ne ñoo lay jàppale. waaw maa ngi woo waa ñi ngi production bi yëpp daal di leen wax ne nañ ñëw jàpp rek te itam bañ a déglu bañ a xàdde làmbu ndoorte dafa metti mais yàlla bari na sutura daal ñu ngi ñaanal nag suñu mbokki bool bool yëpp di leen wax ne di leen jox rendez-vous samedi stade euh, nationale bi képp koo xam ne maame nga deret bool moo ngi daw ci sa rek ñu ngi lay woo foofu di woo amateur làmb ak ñëpp ñi nu tëggal làmb di wax ne nag fi may tëjee rek mooy ki nga xamee ne lu bare bari sama carrière moo ko demoon Serigne Abdou Karim Mbacké maa ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér Mbacké ko wax ne ñaan yi ko bu moo ngi si sax ndigal seen maa ngi leen di ñaanal ñaan gis naa ko bu baax a baax a baax di jaajëf. kon jërëjëf mi ngi noonu ñi ngi production le 29 la woote fële nga xam ne mooy arène nationale ci diggante ñagas ak ki nga moom mooy caatu waala di combat kon ñu ci woo amateur yëpp di ci woo supporter yi di ci woo fan club di ci woo champion yi ñu ñëw parce que mu mel ne que dañoo gëj a gis sax lamb yi am ni arène nationale ñu gis ay Balla Gaye ay Ama Baldé ñëw bàkku ak yooyu xanaa loolu war nga leen woo ñu ñëw nag làmb mbër da daan daan nga amateur bi di ko xaar arène la koy xaar mais léegi loolu bokk na ci yàq làmb léegi mbëri dañoo war di ñëw arène di dëkkante làmb dekkiwaat teelu fa mu nekk mais lépp loo xam ne maam ak tey bëgg nañ ko gis luy dekkal làmb bu ñëwee le le le vingt neuf arène nationale dinañ ko gis waaw en tout cas séeréer yi dañ wàcce stade bi daal ci kàttan yàlla ba mu nekk zéro moom waaw daal am na yu bëri yoo xam ne moom mënoo ko wax da nga koy bàyyi noonu surprise lay nekk ñaan naan rek yow ñu fekk ko jàmm ak salaam daal li may ñaanal nit ñi daal mooy yàlla leen yàlla indi ci jàmm ñu ñibbi ci jàmm loolu laa leen daal képp xam ne bëgg nga na nga ñëw le 29 ko xam ne a bëre a bëre la gëj a bëre caatu waalo nag maam yi ne xam ne day wàcc moom ak ndaama la koo xam ne day njuug kon ñi ngi jox rendez-vous ñëpp daal le 29 di kontaan ci yéen bu baax di leen ñaanal suñu borom defal site bi ba mu nekk ay télé ndax rafetlu nañ teewaay bi ngeen ñëw fii daal dalal ñu jaajëf bëgg